une belle cérémonie euh, menée de main de maître euh, par le Conseil constitutionnel et qui a mis de l'avant un nouveau président de la République, élu au premier tour, qui a compris les enjeux euh, de cette élection, le désir de changement. C'est également un sentiment d'espoir de, sur euh, l'avenir de notre pays, l'avenir de nos institutions, parce que ce n'était pas évident cette élection a été incertaine du début à la fin. Et donc euh, voilà le sentiment que nous avons. Et nous souhaitons au nouveau président, M. Bassirou Diomaye Faye, euh, plein succès pour euh, la mission qu'il attend. Ce que je retiens de son discours, c'est qu'il a bien compris le désir de changement et le besoin d'indépendance euh, de la justice et de façon générale de la réforme des institutions. et également le besoin d'amélioration des conditions de vie des populations. Engagement pour lesquels nous nous sommes tous battus dans l'opposition mais aujourd'hui li ñu mun a wax mooy tey bésu bànneex la ndax Sénégal tolli woon nañu ay guddi yu lëndëm ci euh, élection yi jongante yoo xam ne yi tey ñu ne du am ak du am kii dina bokk ak kii du bokk mu am ci ay violence am ci ay nit ñu ñàkk seen bakkan ñu ñàkk seen alal bu ñu demee ba def ko ba mu sotti nii ci jàmm ba ñu am président de la république bu bees ba def cérémonie institution yi taxawal ko euh, ba jox ko lenge yi loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di féliciter nag euh, monsieur Bassirou Diomaye Faye nga xam ne mooy sunu nouveau président di ko ñaanal yàlla mu réussir mission euh, di jàpp rek ci discours am que xam na ne élection bi mu am premier tour dafa wane ne sénégalais dañu bëggoon changement et changement boobu bàyyi na ci xel bu baax ci wàllu justice ci wàllu institution yi ci wàllu condition de vie wu yi ci wàllu xëy yeeg yooyu et jël na engagement ci waat bi mu waat pour def tout pour que loolu jëm kanam def tout aussi pour sunu diggante ak yeneen réewu Afrique yi euh, jëm kanam boo gisee présence su yeneen chef d'État yi dafay wane ne wax dëgg yàlla dimension bu am solo la. merci mës nañoo xaar liggéey <laughs> waaw ñun non ñun ñun sunu xam moomuñu ko Sénégal moo ko moom. Uh-huh. école publique la ñu def. Euh, ni ñu ko daan defee ci administration bi rek euh, lépp loo xam ne lii euh, nit ñi soxla nañ ko ci suñu xam-xam bi nga xam ne moomuñu ko Sénégal la ko moom na dëppoo rek ak conviction yi ak yoon bi nga xam ne fa la ñu bëgg a jëmale Sénégal. merci beaucoup ah processus bi moom dañ ko war a xoolaat bi début à la fin wax dëgg yàlla loolu moom dañ ko war a tëggaat totalement parce que. yàlla ñu defal sutura mais lépp mënoon na am lii moom lu ñu war a xoolaat la ci institution yi depuis parrainage bi fichier électoral bi euh, affaire u carte yeeg affaire u supervision élection yi lépp lépp lañu ñu war a xoolaat waaw génn nañ ci rek waaye wax dëgg yàlla yàlla ñu defal sutura waaye lépp mënoon na am. décision yi mujj yi Macky waaw man léegi président de la république la ñu am moom mooy Bassirou Diomaye Faye voilà. <laughs>